kon mbokk yi nu fas and ak yeen beytu bis bi ni nu ko baxo amale sëriñ Moussa Ka dafa wax ne man jamme ma ngi deeti yéem ñiy réunion bay fàtte cheikh bamba mi tax ñuy jariño man jamme ma ngi deeti yéem réunion bay fàtte cheikh bamba mi tax ñuy jariño Dumab singor Sakka Diwayi Lamin Dumab singor Sakka Diwayi Lamin Bamba Mangor Alhaji Fallu Lamin sa kartu xol joxna ko Seydi Bamba man faru mag masamba samba demba sa kartu xol jox naa ko Seydi Bamba man faru maag ma sàmba mbaa ma demba ku woote luy defar ci yoonu lislaam wareef na laa ba ñépp gëm luy defar ci yoonu lislaam wareef na wuyu ba ñépp gëm daam kuy woote yoon wu bamba daawul woote wareefu wuyu nde kon nu futi kuy woote yoon wu bamba daawul woote wareefu la wuyu nde kon nu futi baamu man njàmme maa ngi deeti yéem ñiy réunion bayi fatte seex bamba mi ñuy jariñoo dumab singoor sakkaa di waayi laamiin bambaama ngoor alxaaji fàllu laamiin saa kartu xol jox naa ko seydi bamba man faru maag ma sàmba mbaa demba ku woote luy defar ci yoonu lislaam wareef na laa wuyu ba ñépp gëm daam kuy woote yoon wu bamba daawul woote wareefu laa wuyu nde kon futi bokk yi maris naa dégg ci bayit yi képp kuy ànd ak nit kuy tànn ka ngay tànn jikko ya tax nga di ko tànn te muy koo xam ne du defar du def dara loo xam ne day yàq lislaam ni ko sëriñ Saliou waxe woon ne su ma leen jiitee du ma def lenn loo xam ne day yàq lislaam day yàqu bokk day yàqu taalibe